mi laa jéema jóg way fi gën filin si ñëwee yu ma jëmmalul boppam soxna jaara moo jaara soxna jaara sa jéggi àdduna man faaxal min si war jënn aw bin maale gën man faaxal salaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuxayikum jamian bi taxiyati al islam alaa wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ginnaaw bi nu sante yàlla sunu boroom ñu ngi julli ci sangu sangu yépp mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko nuyu soxna su tedd sii fekk si muy soxna Baali Muntaxa di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla na yàlla guddal fanam yonent bi moo waxoon ni anzilin naasa manazilahum na ngeen wàcce nit ñi ci seen wàccuwaay ku nekk cër bi mu am te yàlla jox ko ko nga nangul ko cër boobu danay faral di wax ni député bi nekk assemblée national keroog bi mu juddoo ñu di ko tudd kenn tifliwul ci noppam honorable waaye li waral ku dajeeg moom ni ko honorable cër bu ko yàlla dénk la moo tax anzilin naasa manazilahum koo gis rek jox ko cër bi mu moom bis bii nag day bis bu sagu di bis boo xam ne ndamal lislaam la ku ne gis na poroxaan soriwaay bi mu am digganteem ak dakaar waaye ñi départ ñëpp mbaaxu soxna soo xam ni dafa liggéeyal boroomam ba yàlla gërëm ko moo tax ñëpp bàyyi lépp ñëw maa ngi koy wax léegi ci kanamu sëriñ Xaadim mu ni ma li nga wax sëriñ Muntaxa ba xolam sedd moom laa bëgg nga nettali ma ko ma ni ko dama wax sëriñ Muntaxa ni ko yàlla daf ni yonent yàlla daawuda def naa la ngay sama xalifa ci kaw suuf yaa daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi faxkum bayna annaasi bil xaqi wala tattabi'il hawa yàlla dafa wax ni yonent yàlla daawuda def naa la ngay sama xalifa ci kaw suuf ma ni sëriñ xaadimloo gaydel xilaafa googu dañu koy donn ma ni ko sëriñ muntaxaa nag ci ñi donn xilaafa yonent yàlla daawuda ci la bokk ndax am na koo xam ni taxawaayam ci réew dootul nekk xalifa général pour benn tariq waaye dafay nekk xalifa général pour lislaam bi yépp te sëñ Muntaxa l'islam bépp ko bokk ma ni leen koo xam ni bu réew mi yëngoo xel yépp ni nanu ko woo war na noo xam ni ci ñi représenté lislaam ci kaw suuf ci la bokk ma ni leen sëriñ Muntaxa c'est normal mu mel nii mu mel ndax yonent yàlla Suleymaana dafa ñaanoon yàlla ni ko maa ngi lay ñaan lu bokk ci man yàlla na barkeel loolu la ñaanoon yàlla ma ne leen sëñ Touba bi mu ñëwee it dafa ñaanaat loolu yàlla moom Cheikhul Khadim ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma may tan zurriyatan tayyibatan njaboot gu baax goo xam ni ku ñu ci tudd mu doy sëkk ma ni yàlla feeñal na ko ba feeñal ko ci njabootu sëñ Touba danaay faral di wax ni Cheikhul xadiim bu amoon benn doom sël sël sël sël sël bu ko présenté mu doy àddina kéemaan ku yàlla may doom ju mel ni sëñ Modou Moustapha waay waay doyoon na sëkk gaay yi sëñ bu ko yàlla mayoon benn doom muy Serigne Modou Moustapha doy na sëkk waaye yàlla dollil la ca nga am doom ju mel ni sëriñ Fallou Mbacké nga xam ne dañuy naan zalika fadlullahi yutihi man yashaaw wallahu zul fadlil azim ñu ni déeta waaye yàlla dolli la nga am doom ju mel ni borom njurul borom jàpp ndal boroom liqaadatil ujuuru wal masaalihu bi tayyi wal jazbu wa inni sëriñ Saaliw Mbàkke loola doyatul soxna su tedd si toog way juram nga xam ni mooy sëriñ Shuaybu ca laay faral di wax ni wa ilaa madiyana aqaahum Shuayban yàlla may ko doom ju mel ni sëñ aybu nga xam ni danga naan tuuba ku sëñ Shuaybu jàngalul kala jàngal ka ko jàngal ka ko jàngal sëñ Shuaybu boo ko jàngal waaye yàlla dolli ko mu am doom ju ñu mën a tiitaroo moom cheikhul xadim ñu koy wax cheikh Mouhamadou Lamine Baara. kon xanaa la sëñ Touba ni woon yàlla may ma doom joo xam ne fu ñu ko tuddee ñu ne acam yàlla nangu na ko ñii ma tudd ñëpp ku sañoon bokk ci ñoom waaye cheikhul xadim la ko yàlla jagleel ma ni sëñ Touba nag ba mu ñaanee njaboot yàlla may na ko ko ci ay doomam. waaye rogalaat na itam ba ci sëtam bu tedd bii di borom mbég mi muy sëriñ Muntaxa nga xam ni foo ko xoolee bég loo bari problème bari stress ba jàkkaarloog sëñ Muntaxa sa stress dem loolu la ko yàlla defal cër yi nag yàllaa koy séddale inna lillahi ibadun ida aradu arada yàlla nee na am na ñoo xam ni lu ma occupé occupé buñ ma nee alu ma ni alu ñooñu nag sëñ Muntaxa ca la bokk kon nag soxna Bali lii yàlla nay sa muuraay yàlla nga fi yàgg lool ñu yàgg la fee fekk yàgg ko ànd ak yow kilifa yu baax yi ñu àndal yëpp ñoom itam ñu teew fi ndax yàlla sa jëmm ndax yàlla ak maam jaara buso mi nga xam ne wax naa léegi ni c'est normal yàlla may ko mu am ku mel ni cheikhul xadim parce que maam jaara bi mu tollee ci ñu war ko may boroom kër daf ni bu gisul soxna su mel ni moom boroom kër bu mel ni moom du ko am ci alquran ci sharia ci dégg lislaam ndax maam jaaro bu su ñun ñëpp dégg nañ ci histoire ni keroog bi muy jàng alquran ba aksi ci maakaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyiina ku ne xam na ne foofa maam jaaro bu sa dafa jooy parce que yàlla daf ni gannaaw sayduna muhammad yonent dootul juddu te maam jaara ni man sama objectif mooy am Maam Mor Anta Sali doomu yonent te yàlla ni yonent jeex na ca lay faral di wax ni indiwul yonent nag waaye andi na koo xam ni bu 18 safar jotee nga xam ni moo ni woon xarajtu yowma sabti saamina achara li xidmatil muxtaari fi sëhri safar wasalaamu aleykum wa rahmatullah ma jëmmalul boppam soxna